salaamaaleykum mbokk internet yi mbokku Go TV ñu ngi fii ci stade bu Koungheul stade bi xam ne depuis trois ans mu ngi nekk ci chantier tey nag ñu ñëwoon def visite bi xool si liggéey fu mu toll bi biñ si ñëwee fekk nañ fi nga xam ne tey moom mooy euh, maire dëkk bi di Mayacine Camara mu ñëw fi di xool si fan comme moom joxoon ko ay nit ñaa ngi wax lu nekk di laajte fan toll tey buñ ko fekkee dañ ko dalal suñu bopp laajte na ko

bouger euh, comme accusé nous aussi. il faut que nous nous responsable euh, mais euh, avec la compréhension dans les meilleurs délais ok Diokho Délé mais comme gis nañ ne coupe mère bi football nañ ko paré moment bi final mo ci dess ak yeneen final yi dess est ce que tim ñom mën nañ xalat né ci li sa sa bëgg-bëgg final yi mën nañ ko jouer fi ci stade bi. waaw déjà mën nañ wax ne euh, coupe mère bi. Euh, fi lañ fassiyé ñu jouer ok et ci ay diir yu néew tamit. Mhm. il faut que ñu def pression bu baax ci entreprenariat wax na joxe naa instruction aussi inspecteur euh, des sports. Mhm. pour que ñu commencer au moins matérialiser terrain bi. Mhm. xam ndax dinañ mën a am euh, piste bi demee noonu pour que fii ak un mois ñu mën a lijjanti tout ce qui est ay camp fii ak ay taxawu pour nga xam ne ñu moom sampé ay projecteurs am rek. Mhm. <laughs> ñun da ngeen ñu rek commencé. waaw li ci des mooy euh, nettoyer comme ça set euh, commencé. ok gris yi yaakaar nañ ne aussi ñu ngi koy sampu fii la su que dans quelques jours. presque bari ñu ko tëral. Mhm. ça veut dire que ñëw xëy samp rek moo des.

Mhm. je pense qu'en matière de sport vous pas terrain complet presque en matière d'infrastructure. Ce qui des nous mhm. aussi je pense que le ministère euh, de l'éducation dans le lycée. Mhm. Euh, moins que. que dans chaque quartier nous devons développer au moins demi terrain. pour au moins une émulation au sein du basketball. ok fois da gis benn quartier ay association non dañ ko bëgg def comme États-Unis nga xam ne quartier beeg wala université bi moom mooy développé ay équipement ñuy teg ay trophées yoo xam ne day am solo ci ci wàllu xaalis pour que muy am ay compétition yu baax nit ñi di jàng ñëw ci trois terrains yooyu di ko ci côté basket ne Koungheul am na benn xam ne pour basket la des jeunes mais ñoom dañuy dañuy jëkkoonte ay difficultés yu métti que terrain bee nii ci de subvention gendarme noonu. waaw tout ça je pense que ça peut être euh, réglé Sinon, on ne rencontre pas les gosses mhm. euh,

parce que li nga wax noonu sport dafa baax ci mag mag ñi mën nañ faa dem jigéen ñi mën nañ faa dem mais Koungheul def di boole étude ne stade bi dinañ ci am benn place boo xam ne dañ ko ci mën am faciliter ko parce que loolu def aujourd'hui mhm. euh, orienter quoi vers le vers le secteur privé mhm. ça de gym c'est pas très compliqué benn euh, lieu booy aménagé avec quelques machines mhm. et yaakaar nañ ne euh, euh, privé bi dina ko mën euh, développer développer ba tax na tey je pense que en tout cas ci walu mairie li wara ñu garantir monsieur le maire beneen question bi mooy terrain bi nga xamante ne mosu ñu ko sauvé mooy terrain bi nekk ko moom. Euh, xoolu Koungheul bis bu ñu ko a fat est a négocier ak ñoom pour jox leen feneen a jëfandikoo xam nga euh, erreur bi fi ñu ko defee mooy bi ñu ko defee ay kër

da ci mën ci seen bopp sa kàddu gu mujj monsieur le maire tey bi nga ñëwee di visiter chantier bi gis nga am nga satisfaction parce que fekk nga ne mu ngi avancé nit ñëpp dañuy wax dafa taxaw mais tey ku gis lii gis na grille ñu ngi mu ngi dem gis na projet yëpp andi nga ko lépp li nga di tegee la sa kàddu gu mujj euh, tey jii ñun fii sunu ndam yàlla def na man en tant que yàlla def na ma nekk ma nekk ma nekk maire te dama gëm sport <laughs> man ba léegi maa ngi sport maa ngi football Dakar Sacré-Cœur ngi dem fu donc ça veut dire que lii si affaire yi sport ñang culture loolu man dama ko gëm ak environnement uh-huh. yoy dama ko gëm avant mun naa bokk na mun naa wax ne bokk na ci ñi gëm ci Sénégal moo sax ci Sénégal ba tax na dinañ jël sax ay initiatives ko xool nan lañ fi mëna commencer ben gazon naturel uh-huh. en attendant ñu am ay partenaires yu tout lépp luñ ci def ci xaar aussi euh, Petrosen bu ñu ñëwee ni ñu mën a dimbalee ak seen appareil euh, topographie mhm. ñu mën a mesurer euh, terrain bi loolu je pense que semaine prochaine ñoom bu ñu reprendre c'est la première kay gisoon nañ déggoon nañ fi ne waa cadre de vie euh, pare nañ pour dafa fii di ay arbre pour gën ko décorer mu gën a rafet est-ce que loolu ba léegi projet boobu mu ngi continuer wala. projet euh, ñoom dugal nañ ci euh, dugaloon nañ ko aussi dans leur plan de passation de projet. retard mhm. ci toujours. ok naa le doon wax ne ma bon moo taxoon mu amoon problème pour. monsieur le maire du ma fàttali question bi gis nañ ne def nañ tirage bi euh, war na si si match est que nan Bambouk ren nan la taxee parce que xam nañ ne yaay maire Koungheul mais yaay président Bambouk Bambouk ren ban